auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa wa barakaatu mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaare nong ci juróom fukkeelu jotaay ak juróom ci téereb Xalimag Leer ba ñoo ngi ci xasida ak wakaan xaqan ci biir xasida gi di wakaan xaqan sëriñ bi mi ngi ciy wax ne yow sama borom jëme nga ci man loo xam ne du deñ mukk di doon kéemaan ci gaañu baax ni tànneef yi wajjahtali maa laa yazaalu ajaba fi abadil lisaalihiina nujaba sëriñ Tuubaa mbiram gaañu baax ñi nga xam ne ñoo gën a jege yàlla sax day mel ne ñoom la gën a yéem ndax li ñu ci xam ku yëggul fa ñu yegg du ko ci mën a xam moo tax ñoom fu ñu tollu dañuy yéemu ci mbirum sëriñ bi ndax nitu yàlla ku yàlla may sottil ko xéewal yu yaatu ku la gën a yàgg ci yàlla gën laa sori moo lay gën a gis xéewal yooyu moo tax ñooñu ñooy gën a yéemu ci sëriñ bi sax ndax li ñu xam ci moom ku dul ñoom du ko ci xam gis nañu ci biir xasida gi fu sëriñ bi waxee ne yow sunu boroom jox nga ma loo xam ne fàtteloo na sama xol lépp lu wayoon ci ay lor yaa ma faral ay lëndam ci sama xol a'taytani mal qalba ansa kullama mada mina durri ma xawta zulama loolu mooy wane ne xéewal yu rëy yi muy sante boroomam jaar na ci coono ak lor yu metti loor dor ko am waaye nag ba fayug yàlla dikkee fàtte na mboolem lor ya ak metit ya xaside gi daa yegg ci doon xarbaax baax yéeme ndax sëriñ bi nee sunu boroom maa ngi ñaan nga def xaside gi muy xarbaax doon luy jariñ asaluhu kawnatihil qasida xaarixatan li aadati mufida loolu tes ci déggee ne xasida gi di wakaan xaqan yéeme na lool ndax sëriñ bi xasidaam yépp xarbaax la mu dikk tuddaat ko fii nag nga xam ne ginnaaw ba am mbindam nekkee xar baax ak karama daa mel ne wakaan xaqan ma dafa nekk dafa nekk geneen kéemaan geneen xar ci biir mbindam wax na ci kuy jàng xaside gi ne sunu borom képp kuy jàng araf yi araf yi muy xasida gi di wakaan xaqan yàlla na nga ko defal lu kawe njortam ci lépp lu baax lu mu bëgg mun na ala qaari dil xuruufi bi maa yafuuqu danna mi maaruufi bari na lool xeetu nettali yu ñu nettali ci xasida gi te bayit wi dëggal ko lu ñuy wax ci njariñal xasida gi rek bayit wi firndeel na ko ku jàng xasida gi yàlla da koy defal pajuk ajo lépp lu mu soxla doo koy amee nu kawe njortam bokk na ci sëriñ bi di sante ci xasida gi mooy dàqal gi ko sunu borom dàqal saytaane ci jëmmam dàqal ko ko it ci mbooleem ko aju ci moom mu mucc ci seytaane ba tey mi ngi sant sunu borom ci yëkkati gi mu yëkkatee alxuraan ak xadis ak mboolem bànqaas yi diine yi ci jëmmam ba noppi boole yooyu yëpp nag daldi ko koy jox te dootu ko jël bokk na ci cant gi texe gi nga xam ne sunu borom warlu na ko ko ak yëkkati gi mu yëkkati ab liggéeyam jëme ko ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ngir nangu gi liggéey bi nangu bokk na ci cant googu jublu gi nga xam ne mbooleem xoole ñi texe jublu nañu ko jëmmi Sëriñ Tuubaa wakaan xaqan nag ci cosaan li téeméeri bayit ak juróom fukk la woon cent cinquante ginnaaw bi la ci ñaari bayit yi dolliku muy ñaari bayit yi tàmbalee ashabta baneen ashabta bi eh, baneen ashabta bi leen jiitu ashib la woon li waral soppiku googu nee ñu sëriñ bi bu ko daan jàngulu day wax ñuy jàng asxabta te indiwaale yeneen ñaari bayit yi tàmbale asxabta mooy asxabta faroon lisawaana kulaman ak lisawaana kulam lisawaana kulam laysa yakun muminan ak laysa yakun musliman ak laysa yakun muhsinan loolu nag noonu mu ko daan jàngaloo nga xam ne wuti nag ni mu ko bindee woon noonu mu ko daan jàngal ba mu demee ba siiw ci la bindkat yi tàmbali nag di binde ni koy jàngloo di bind asxabta di indiwaale yeneen ñaari lépp daal di doon cent cinquante bayit ba jamono ji sax dinañu gis yenn muul yoo xam ne mbindum cosaan mu njëkk ma maanaam mbind mu njëkk ma laata mu koy jàngaloo noonu moo ci nekk nu xam ne rek du mbir yu wuute ci bindkat yi waaye lépp euh, sëriñ bi moo ko bindee noonu te loolu daana xew ci xasida yi lu bari xasida gu génn ba ñenn ñi am ko mu tàmbalee tasaaroo sëriñ bi gis xasida ga daal di cay dolli dara baa mu wàññi ci dara te fekkoon na mu door jot tasaaroo ci ñenn ñi ba noppi loolu moo waral léeg-léeg ngay gis wuute yi baat yuy wuute walla ay bayit yuy wuute walla mu mel ne dara daa manqué wala daa mel ne dañoo yokk dara kon noo foofu loolu moo jëmoon ci xasida ak wakaana xaqan wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.